est que tey loolu moo war a nekk seen taxawaay wala dañu war a dem wuyu ci appel boobu nga ah, xamante ne président au euh, dialogue il faut y euh, seulement le contexte xam nga jour jour boobu président dafa génnee arsenal bi yëpp arsenal de guerre c'est bien <laughs> pour protéger le Sénégal et tout mais arsenal aussi de répression des manifestation éventuellement mm. euh, ba pare ni ni dialogue le même jour c'est-à-dire que daf may jox image damay dama ci damay saboter souvent da ngay jël sa jaasi teg jël sa yëpp teg na. ñëw leen mattu mattu nag ni ñëw leen ñu dialogue <laughs> bon boo ko defee nit souvent day am. day am euh, c'est vrai appréhension mais dans tous les cas nañ comprendre une chose que am na question essentielle yoo xam ne mënuñu ko bañ a dialoguer je le dis très sincèrement seen euh, kii euh, Sénat wax na ko fii fu mel ni parrainage gis nga buñ ko laal leader yu bëri wax fii ñu si bëri duñu nekk candidat donc il faut que revoir toutes ces questions tout de suite. il faut que ñu changer ñu dindi ñu tëbal ko parrainage. parrainage bis nga bu ñu ko bàyyi ko de. Ah, mais ah, non Malick nga ngay jéggi li may wax. da da euh, Sénat Sénat siiwaroon nga seen dafa defoon une de propositions pour ñu defaraat. parrainage bi propositions yi laa nañ suivre Sénat. ci loolu. mais actuellement Assane parrainage bi lu mel nii. waaw euh, lan moo si problème bi. jëkkante bi boo par exemple. boo jëlee yow nga nga xool xoolal jour bi ñuy déposé boo xam foofu boo xamante bi am foofu. Ah, parce que parce que bu njëkkee déposé. mais mais loolu ça n'a rien à voir ak le ah, parrainage. non non je viens moom boo njëkkee déposé. ñeneen ñi bu ñu enregistré seen i seen kii bu ngeen amee même nom ñoom doublon lañ leen di compter. scénario yooyu yëpp la ñuy éliminer ay dul bon ay boo ëppalee kenn waruñu accepter. loolu ce qui soo manqué kenn waruñu yooyu yëpp scénario ni nañ ko xoolaat. loolu je comprends mais man fu bu may waxee moom mooy mm-hmm. concept parrainage que ngay demee élection présidentielle. non loolu loolu le principe non. la wax ni na la Sénat li mu wax je comprends nañ ko def. sinon euh, bu ñu ko bàyyee à l'état Euh, beaucoup de leaders yu foog ni day nekk candidat du ñu nekk candidat parce que li xewoon mooy xewaat mm-hmm. et puis pour éviter tout ça et puis maintenant ce qu'on appelle les détenus hein, que ce soit politique ou pas toutes les façons c'est des détenus et dans le cadre de manifestations mm-hmm. publiques appelées par un parti donc cadre boobu mën nañ discuter toutes ces questions ñu xool également nan la ñuy libérer euh, décompresser tension bi wàcc loolu jaloo rek sincère moo ko mën moo ko mën a kii mais pour cela mhm. évidemment peut-être que autorités yi bu ñu amul légitimité bi parce que légitimité mën nañ jël ay membres mhm. éminents de la société civile defoon nañ ko fii Famara Ibrahima Sagna mën nañ ko def ñeneen ak ñeneen si Famara n'est pas disponible mais mais justement ñu waleen ñenn ñi di teg ay conditions est-ce c'est important en démocratie maanaam débat contradictoire la mais man li ma ci jàpp mooy état bi mooy responsabilité mhm. jour bu taxawee ni dialogue bi mu ngi nii en rapport avec la société civile avec des force vives yooyu ñu wax ñu jël ci ñu crédible mhm. ñu teg en place ñoom Alioune Tine ak ñoom ñëpp ak ñoom Amnesty toutes les ONG et cetera les